Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ñi suivre du ñu seetaan di ñu topp ba ba léegi. bu ngeen ñu gisee nag fii ñuy tey jii ñu ñëw ki toog ni sama père la tey su ma nee sama per yaakaar naa ni àdduna bi ñëpp xam nañ ko per Khadim nag lañ koy wax am na loo xamante ni nag dootuma ci sore tuuti dama ko bett ndaxte tuutee tee rek du ma ko fekk ci biir kër gi ñëpp a koy woo téléphone mënuñu koo gis fenn man nag comme que doom laa ci kër gi lenn li nag man maa ko sañ moom mi nga xamante ni démb mu ngi woon ci biir làmb ji moom mi nga xam ne mooy entraîneur bi nga xam ne mooy entraîneur Sa Thiès di entraîneur Balla Gaye 2 ñu am tuuti loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy lam-laamee démb ci jafe-jafe bi nga xamante ni démb am na ci biir làmb ji coow li xeex bi Balla Gaye 2 jugee fee mer Sa Thiès jugee fee naroon na def benn affaire boo xamante ni ba làmb ji tey ji naroon na cay yàqu li ci laxasu woon bari na waaye balaa boobu dama koy bàyyi mu nuyoo Père Khadim ñu nuyu Ah, waaw ama maa ngi fay dina nuyu mbokk internet yëpp ñi seetaan eh, sa sud bi yëpp maa leen di nuyu leen ñaan a jàmm dëkk sàkk si ñoom di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg jërëjëf. alhamdulilah gannaaw bi nga nuyoo ba pare eh, ci li nga xamante ni démb jafe-jafe yi nga xam ne démb amoon na ci biir làmb ji coow li mën nga ñoo détaillé tuuti ci li nga xamante ni problème bi fa la commencé woon démarré. waaw loolu day xaw a compliqué ndax eh, làmb li ñuy wax dafa ànd ak coow. dafa ànd ak coow boo xoolee camp bee ñu ngi naan dañoo faral waa Kër Sa Thiès waa Kër yéen ñi ngi faral waa camp bale ah coow lamb coow la àndal en fait làmb moom coow la àndal franchement lamb coow la àndal <laughs> waaw. Euh, maanaam euh, coow lamb dafa ànd ak coow mais dañoo toog ba ci yàgg jékki-jékki gis benn affaire bala Gaye de jóge fële toog fi mu toog mu jékki-jékki jóge fa ñëw ba ci digg géew bi di wax ak Sa Sakess tourné di doxantu am benn xale boo xamante ni dafa am lu mu ko xëpp ba tax moog Sakess ñu naroon fa jàppante moog Reug Reug ñuy buuxante euh, maanaam bi ngeen tollee noonu ci diggante bi noonu noonu noonu maanaam problème bi ci fan la commencé démarrer avant nit ñi di comprendre nii kee jël na suuf ba xëpp ko Sakess. non xam nga làmb ku nekk day déstabiliser adversaire am li ñuy wax léegi tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire mais malheureusement. fi ñu dalee baaxul Balla Gaye fu mu taxaw di encadré di uuf rakam kenn du ko déstabiliser Balla Gaye mooy làmb doomu Double Less ñooy làmb Balla Gaye bu bàyyee lépp ba mu def depuis après combat deful benn sortie bu defee sorti bi làmb rakam bi da ko jaral taxaw na ko tey kenn mu laa teree daan avant mi génn ci kër gi kenn mu laa teree daan kon Balla Gaye amoon na yaqin ne combat nii la mën a demee très franchement mais nag coow lam moom mënut a ñàkk ci biir géew mais Balla moo déstabilisé sax adversaire am adversaire u Sa bi ba mu duggee lamb ji la lamb ji tourné complètement waaw ah, kon. Euh, loolu daal mën nañoo wax ne daal Balla daal moom mooy lambaloog mooy lambaloog daal. waaw la Sénégal xam nañ loolu Balla la laax ni bu doon bu la wax chaque mu ne Balla lamb bu doon livre la Balla mooy dictionnaire bi. dictionnaire loo réer si si si phrase rek da ngay da nga ubbi dictionnaire bi da ngay da ciy gis ah Balla Gaye mooy dictionnaire bi rakam bu dee bëri mu taxaw rakam nee naa ñoom ñëpp am nañu am nañ baay mooy malal saako mooy seen baay ndax mooy taawu baay taawu baay mooy ba taawu baax mooy baay mais Balla mooy baayu Sa Thiès eh, wane na ko démb kii France buntu këru rak sa rakk di nelaw damal tëdd nelaw yi ngay France ci biir ku ñëw mu dàq la Balla Gaye moo doon dàq nit ñi en personne durant toute la semaine presque. maanaam Balla Gaye daal mu doon garder buntu kër gi de garder rakkam ci mooy fanaan ci buntu kër gi naa ko mu fanaan ba taay ndax heure bu nekk laa jël ji ànd euh, di ko yóbbu entraînement mais loo ñëw doo ñëw da ngay fekk Balla Gaye toog ci buntu gàll bi donc di veiller pour rakkam kon ndam li da jaral lépp. maanaam combat bi daal am na daal foo xam ne ñoom fa lañ ko tegoon. waaw waaw am nañ ko tegoon fu wéer a wéer a yàlla combat bi seen combat la woon mënuñu ko woon perdre euh, le moment. moo moo la prouvé te il l'a fait alhamdulilah il l'a fait. lu ci bari ñoom ñu ngi wax daan na Sakess la moo tax bi Reug Reug defee kat appi Sakess la moo tax muy dem di bëriwaat wala yéen yéen a ko conseil waat na ko dem a bëriwaat wala lan la. xam nga sport sport d'une manière générale sport discipline la laaj sport discipline lu tax nit dem entraînement du bëgg entraînement discipline moo tax nit dem entraînement ñu dégg tubaab baa ñu ne sportif au niveau xam nañ li may wax sport discipline la. ba ñu ba ñun combattant yi bu ñu laaj naan ban discipline ngay def du ñu wax ban sport bi ngay def lu tax nit dem entraînement discipline moo tax muy dem entraînement dafay xaalis yu bëri pour entraîner defar yaram discipline la donc meilleur médicament mooy sport Balla Gaye bu uufee rakkam mu ñëw di bëre si mu teg ko si temps dara du ko déstabiliser c'est vrai que gis naa ñu am na yu benn nen mu yore benn waaye wéq loxo Balla Gaye lu si yoon wéq loxo Balla Gaye mu wéq loxo Balla Gaye après daw Balla Gaye xool ko bu doon nen boobu moo taxoon mu ñu am victoire kon combat bi kon combat bi dañ koy kon loolu taxul woon ñu am victoire entraînement bu wóor moo moo taxaw liggéey bu wóor moo taxaw ak sérénité bu vrai serein dafa serein euh, Sa Thiès combat bi boo xool fa serein donc bu defee kat appui mu bërewaat c'est normal c'est très normal arbitre moo ne moo leen boole arbitre moo leen tàqale avant ñu avant ñu bëri loolu leen arbitre wax lii moo leen moo di boole sifflé moo leen def na quatre appuis yu leer Sa Thiès bu doog woon quatre appuis Sa Thiès du ko bàyyi. mais nag foofu noonu tam ñu bari nee nañ erreur bi Sa Thiès dafa def benn erreur erreur bi Sa Thiès def mooy lan moo tax bi bi bi sa waay defee quatre appuis automatiquement mu jékki-jékki rek daw mais bi ko arbitre bi woowaatee moo waru woon a dem sëggaat daan na day bëri ñu ci bari foofu lañ ko xawee jox tuuti toor waaye man. am na loo xamante ni bëgguma cee xuus tuuti li tax bëgguma cee xuus tuuti mais am na foo xamante ni am na lu ndaw lu ma ci bëgg a laaj Balla Gaye bi mu taxee dafa am benn mbër bu jógee fële ñëw song ko fa daane da koy tëkku muy Siteu Siteu fi nekk am na bëtam bu mu jël teg ko ci kaw Balla Gaye 2 mais instant yi nii comme que Sakes yàlla dogal na ni daan na Reug Reug yéen instant yi nii nii nii nii est-ce que Siteu pare ngeen yéen pour may ko sens. Balla Gaye du moroom Siteu Siteu boo xoolee. ba mu ñëwee di def lu nekk man def na lu nekk ci làmb ji dug ci stade bi faral kii ànd ak kii def lu nekk def Balla Gaye bu ñëwee la mel ne da mel ne Siteu musul nekk ci stade bi mooy li ma wax Balla Gaye mooy làmb waa ko dubalee si ñooy làmb waa ko si ñooy làmb qui le veut amul sens naka la ko Sa daane muy bàyyi Sa Thiès di bëre euh, Balla Gaye Balla mooy làmb yi tamit loolu dafa loolu dafa sax c'est pas rek bëre naak euh, booy ñaar rek booy bu nekk dafa war a jaar si Balla Gaye Balla Gaye c'est pas n'importe qui sur moom na lijjanti rakkam bi ka daan ba pare Sa dafa daan dafa dafa jaar si kaw euh, Siteu comment muy bëre muy bàyyi kii bàyyi mag di dëkk rakk yi bàyyi rakk di dëkku mag gi attends c'est n'importe quoi. dafa am ñoo xamante ni ñoom ñooy taxaw di commentaire daan ne Siteu léegi maanaam ni Balla Gaye daan def nit ñi xam nga day ñëw esat humilier la wan ni la xale la essai yi Siteu yenn booy dañoo toll léegi ci jamono jooju essai yi comme maanaam ni Balla Gaye daan def booy yi moom la ko léegi di booy di def te bu léegi man Balla Gaye fi ko gars yi bëgg a yóbbu man man man personnel man munu ma nangu loolu parce que li tax man man munu ma nangu loolu dañuy bëgg a jël Balla Gaye de bëgg koo yóbbu retraite te Balla Gaye xale la comme ñoom na Balla Gaye teel a bëri loolu à chaque bu ko nit ñi di xalaat rek dañ ko war a mën a bàyyi seen xel parce que Balla Gaye 2 boo xoolee moo fi njëkk nekk jeune boo xamante ni moo fi njëkk jël roi kon tey ji Balla Gaye 2 bu ñu doon xool champion tey ji ci biir euh, arène sénégalaise kon dañuy jàpp ni kon maanaam moom wàccoon na ak ay supporters mais ba léegi ñu bari yaakaar nañ ne Balla Gaye 2 dafa jeexal man nag nangu ma ne Balla Gaye daa jeexal ndax démb Balla Gaye bi ma gis Balla Gaye démb loolu wute na ak Balla Gaye 2 ba ma xamoon ngeen a ngi waajaat nag beneen combat buñ génnee ci cadre bi nga xamante ni mooy coow démb bi am na loo xam ne kenn du ci xuus ndax te dafa am loo xamante nii nag yoon moo ko moom mu nekk CNG ndax xam naa CNG moom am nga liggéey bu mat sëkk parce que li ma jot a gis ni esat yaakaar naa ne su beneen yoonatee beneen lamb bu ngeen ni jëlaat di ko tëggat mu nekk lamb joo xamante ni incha allahu rabbi gars yi dañoo a mën a dem yaakaar naa ne matuwaay gu mat sëkk war ngeen ko defaat ci digg géew bi parce que li amoon démb diggante Balla Gaye 2 ak làmb jooju war a ñëw incha allahu rabbi comme que yow mi nga xamante ni yaay jàpp Balla Gaye di jàpp Sa Thiès di leen entraîné ci wàllum xeex ci wàllum entraînement tey ji yow lan ngeen fas yéene wàcc ci diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène xam nga Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène miinte nañ xamante nañ bi mooy seen troisième jàkkaarloo bu ñu war a jongante ñoom ñaar euh, j'espère que di ñaan yàlla may Balla Gaye ndam ndax bi bi Balla moo koy moom incha allahu rabbi am nañ yéene bi bu baax ñaari gaynde lañ nag Eumeu Sène ak Balla Gaye moom kenn du leen wax ci ci làmb te ñaari ndaanaan yu bëri lañ eh, di ko préparé rek comme jotagul mun mu ci sori trop trop trop trop mu ci trop mais di ñaanal Balla Gaye am ndam rek le jour si incha allahu rabbi buñ jàppee date ba jàpp jour bi boobaa dinañ entamé suñu programme mais saa bi comme amaguñ date waaw mun nga xam kañ la kon ñi tëgg seen làmb ñoo mën a joxe date ñu mën a jàkkaarloo ak euh, séance d'entraînement yi. alhamdulilah lii la woon am na loo xam ne nag duñ ci xuus ndax jotagut ndaxte am na loo xamante ni nag balaa ñu cee yegg day fekk ñu am ci lu nu ñu leer da doon dem nag dama ko bett ndax ku ko woo téléphone mu ne dafa am ci lu ma nekk dama ko bett nii ndax gisuma na xam naa ne su ma ko woowoon téléphone dina dina dagg yi itam de. mais dafa am loo xamante ni nag cër la te cëru doom ak diggante cëru baay moo waral ma saña def lu mel nii dama bëgg nag yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéenay seetaan bu leen jàpp ni nag bu ngeen ñëwee dafay bañ a wax ak yéen déedéet man doom maa ko sañ a def lii dama ko bett fekk fi sama yaay ma ne ko kat sama père laay ñëw pour jësi ko parce que démb làmb ci coow li moo bari woon père ah gannaaw loolu nag dañ la ci sant bu baax a baax ci li nga xamante ni tey ji defal nga ko dañ la ci sant di la ci gërëm bu baax a baax ñu bàyyi la tamit dañ kàddu yi nga tàggatoo xam naa ne instant yi bi xaj na am nga foo war a dem waaw di nuyu waa Sénégal yëpp di leen jaajëfal di leen sew coono waa kër Reug Reug waa kër Sa Thiès di leen coono bu baax ndax far moo metti far moo metti tey jii ñi far bëgg bëgg Reug Reug bu baax a baax a baax jàpp nañ ne ba tey Reug Reug moo am xam nga c'est problème far moo fer moo mel noonu far moo metti ñi far moo ñoo gën a metti sax ñu nekk ci ci athlète bi di compétir ñi far ñoo gën a sonn fuuf kon di leen ma masaw dafa jaadu di ma masaw bu baax a baax a baax a baax di nag Sénégal Sénégal la jàmm rek moo fi xaj làmb lu muy bari bari coow lu muy bari bari bari bari ndam li benn kër lay dem ginnaaw yàlla dogal na nag ñëw na si kër euh, Sa Thiès c'est vrai que euh, verdict bi daanoogul CNG jëlagul dernière décision ñoom ñoo koy yore mais arbitre yi nañu bàyyi xel bu baax am na combat yoo xam ne c'est pas n'importe ko yi ko xam ne mais combat yëpp bokk yam bu ndaw baa bu mag ba li booy bi nekk jàmm gën di wax njaago bi nee na nee na licence bi Balla Gaye dagg licence boobu la dagg <laughs> tu kon ñoom ñëpp bokk yam pour ñu jéem a canaliser rek jéem a yamale yamale waaw dafa am solo lool day defar day defar di nuyu nag waa kër waa kër Sa Thiès yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn mu waxee Malal wax naa ñëpp mooy seen taaw di nuyu ñuy jàppale sonn ci kër euh, ñu sonn sonn ci Sa Thiès leen jaajëfal bu baax dafa war xamul ndax dañ ca sonn lool commencé ci gii coach gi Olympique Club di ko jaajëfal bu baax papi kenn du moom papi di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ak euh, El Hadj Faye ay xaritam lañ guddeeg bëccëg heure bu nekk ñoom laay woo man ñoom laay coordonné pour pour am sama programme ak Sa Thiès Sa aw ma ci moom soxla du may woo ñoom ñoom ñoo koy woo ñoom ñoo ma koy indil fu mu ko soxlay kon jaajëfal papi dafa war ak élage bu baax a baax di nuyu nag bu baax di jaajëfal bu baax a baax ay àndaw àndaw àndaw wax dëgg yàlla jàmbaar la àndaw bëgg na Sa ba jeex tàkk tàkk tàkk kenn du Pape Mama Pape Mama jàmbaar la lool lool lool lool lool lool ak Moussa bu Sa jaajëfal leen dafa war commissaire leen jaajëfal dafa war ay jàmbaar lañ lool lool lool kenn du seeni doomu ndeyu Sa Thiès seeni aussi wax dëgg yàlla def na lu nekk kon jaajëfal leen ak seen jarbaat bu baax bi fàllu jarbaat boo xam ne moom place doom la taxawee seen kanam fàllu aussi vraiment di leen jaajëfal bu baax di nuyu uh, mbokk ñi saan suivre ñu suivre seen site bi yëpp leen jaajëfal bu baax di leen baalu àq nag macha allah papa tàggatoo na lii rek lañ ci bëggoon ngir bëgg a leeralal askan bi ngir bëgg a xamal askan bi ne carrément kat waaw lii moo ñu taxoon jóg ngir bëgg am loo xam ne dañ koy leeral tuuti di nuyu nag waa kër bala Gaye 2 bu baax a baax di nuyu nag mère Sadio moom mi nga xamante ni mooy yaayu Balla Gaye di nuyu Balla Gaye di nuyu Sakes mi nga xamante ni yaa suñu borom dogal na ni moo doon bëre démb ah di ko wax la nag ne ko ah gi tam yal na ko jig ak jàmm waaw di nuyu commissaire di nuyu Séni di nuyu Badara di nuyu ñëpp di wax nag ne leen nag nii tey day neex suba day naqari yaakaar naa nag ndam li ñëw na kër Double Less di leen ko wax di leen ko jaajëfalaat tamit di leen ko gën a nag xam nag àdduna nag nii la am na nag benn message bu ndaw nag bu ma bëgg a ñëw tuuti ngir tëjee ko làmb dafa am loo xamante ni def koo làmboo muy di ñaan yàlla suñu borom di la dimbali parce que am na loo xam ne accident de làmmiñ day am ci doomu aadama accident làmmiñ yal nañ ci yàlla musal Père Khadim yow mi nga xamante ni yaa nekk ci yor rëg-rëg dafa am baat boo xam ne da nga ko waxoon askan bi yëpp taxaw di la ci xaar damay ñaan ngir yàlla wure suuri su beneen yoon a tee li nga xamante ne kàddu la te nga yëkkati woon ko di ko wax yaakaar naa ni jullit en tant que jullit yëkkati baat bu mel noonu di ko wax loolu message la di ko wax képp kuy entraîneur ak képp kuy staff bi ànd ak mbër bu la set tiimatee boo ciy wax dara bu tax nga wax loo xamante ni su bis ba jotee kenn du ko gis yow wala ilaa nga sëgg di rus yal nañu yàlla musal ci loolu di jaajëfal ñëpp di jaajëfal yéen ñi nga xamante yéen ñuy suivre ci biir Salam Vision di ñu suivre tamit ci biir Kiki TV di jaajëfal di nuyu Samir di nuyu ñëpp di leen wax ne nag émission fàqata ngi noonu tey Père Khadim lañ fi bettoon tey ñëw jëlsi ko maa ko sañ maa ko sañ te maa ko sañ loolu laay def yéen nag sama mbokk Sidi bu leen ma sonal te bu kenn woo téléphone naan ma jàppale ko nag Bienvenue sur Salam Vision.